daal dama ñëw tey di leen wax lan moo ma dal ak sama xarit Matar Matar mooy sama xarit boo xam ne gisuma ko depuis cinq ans léegi bi ma ñëwee Sénégal temps yi ak coronavirus bi coronavirus bi aéroport international Blaise sama xarit bi xam nga suñu maam lañ ko tuddee ma mu ne ma da ngay toog 15 jours aéroport ci boobu pendant 15 jours yooyu ñu quarantaine ma ne ko y' a pas de problème su dee 15 jours rek la man mun naa toog bëgguma jàngoro bi wis ci dëkk parce que bëgguma nekk moo koo xam ne ma may wis léegi 15 jours yi jeex xam nga ñaata laa am ma am deux semaines rek bu mën a def li may lijjanti ma ne ko y a pas ma dem ma ne tey moom damay wàcc guddi guddi laay ñibbi 7 heures et demie fekk ma biir Dakar mais tournée rue Jules Ferry rek mataa yegg si fa. ma ne ma ne ma yee xawa na nga def yu ginnaa la gis xawaa ma ne ko mataa fii amul xawaa yu bëgg naa la trop mais gis nga fii couvre-feu bi il est 19h30 20h la ñuy couvre-feu. bëgg naa yegg sama kër nekk sama biir kër vingt heures mataa ne ma yow da ngaa ragal waaye ay fay ma ne ko déedéet déedéet mataa loxo ba foofu na fa yem gis nga virus bi dama lay pomper léegi ndax virus bi sa loxo foofu la nekk la raxasu nga mu ne ma déedéet ma ne ko mataa soo raxasul daal téyel say loxo mataa teg ko kaf man ma teg ko dëgg mataa ne ma waaye kaay kaay ma boqal ma ne ko fii amu fi boq gis nga sa jaket boobu virus bi juróomi fukki waxtu. fukki waxtu ak ñaar dafay toog di fa xalamu léegi nga bëggam nag boof ma jox ma virus bi ma yegg sama kër jox ko samay waa kër yow bu laal kenn soo yeggee sa kër daal li nga sol teg ko de côté fóot ko ba noppi nga ut beneen yére nga sangu ut beneen yére ma daal ne ma eh, yow yow difficile nga de ma ne ko difficile ma dëkk bi laay bari mu ko protéger ak sa yow sax dama lay protéger yow xamoon sax dama ndax damaa feebar parce que aéroport nee na feebaruma sax c'est vrai 15 yow comme testé wu loo sa bopp rek Matta dama yow da ngay font tey rek lay plongé say tànk xam nga ma waa Gorée la ma ne ko Matta sooy plongé ma yotox la dama lay yotox doo am sax jotu jël ni waa kii ma ne ko Matta man ngay def nii mu ne ma yow ah da ngay buqi say bët yi mun buqi ay bëtam ne nii dara ma ne ko may buqi samay bët mu ko biggee mi ñu mel ni bul fokki ndoxi Gorée ba ma ne ko waaw moo gën ci man mu a ma bon du ñu mer. xaaral ma jox la sama téléphone nga bind sa numéro ma ne ko laay lay la laa mataa téléphone ba ma ne ko fàtte nga ko laa dera mbay saa su mbay ba ñu demoon nit ñi di xeex ak bisaab yeeg ak beñe yeeg yooyu ñaata ñi dafa nekkoon mu ne ma bari woon na de ma ne ko waa gis nga sa coronavirus bi sa téléphone foofu la gën a nekk di daw ordinateur yi ramp yi foofu lay nekk surtout ordinateur yi di leen naan xam nga dangay jël sa ordinateur jox ko keneen mu naan la you know download yëpp déet da ngay raxas loolu yëpp ngay raxas waaw screenshot ak yooyu yëpp raxasal Matar ne ma waaw mais yow ma ne ko Matar on a des amis en commun euh, je vais leur donner euh, je vais les appeler et puis me donner ne ma ak ah, ma ne ko Matar maa ngi daw Matar ma ne ko da ngay taxaw mel ni militaire policier yi nekkoon gendarme yi nekkoon palais taxaw noonu ngay naan zëm taxaw ñu waxtaan mais waxtaan amu fi nañ daw. mataani moo ma doo ma tàggu ma ne ko mataa dinaa la tàggu tàggu naa la tàggu naa la eh, eh goodbye mu ne ma yow ma ne ko non dama bëgg a yegg sama kër balaa huit heures su ma yeggee sama kër huit heures une policier yaa ngi taxaw foofu mun naa leen woon sama carte sage ak médical ak lu ma def yëpp noonu dañuy lifte sama tànk doo ci samay tànk yi te xam nga man mun ma nekk di xeexoo ak Aliou Ngunjaay naa bàyyi rek. ay procès yooyu moom mun ma fa yegg nañu daw Matar à bientôt on se revoit en deux mille vingt et un li yëpp dina jeex décembre deux mille vingt deux mille vingt premier janvier deux mille vingt un dinañ ko baal ba suñu xol sedd bye